alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa maulana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di ziyaar mbokk yi fi teew yépp tey ñaanal Cheikh mun taxa sunu boroom yàggal ko fi lool te weeral ko di ñaanal Serigne Bassirou mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootuk borom daarul mooti sunu borom mot li ay yeneem naka noonu la lañ koy ñaanale itam sunu sang bi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootuk Cheikh Mahmoudan gépp di ko ñaanal sunu borom kàttanal ko te dëgëral ko ba mu mot li mbooleem li ay yéenam lépp ak yéene yi ñi ko jiitu woon ci bopp njaboot gi yépp ñi ngi leen di ziyaara bu baax niñ ko waxe ci jataay bi nga xam ne baaxu woon nañ koo ànd ak yéen waxtu woo xamante ne agsi nañ ci bis bi nga xam ne moom lañu ñu dëgmal suba njabootu daaru koso di ko taxawal ci njiitul sët yi rek nag waaye ànd kook taalibe yépp kenn desut ñu baax ko amal ci diirub ay lu toll ci ñetti at yoo xam ne baaxoo woon nañu bu ñu nee suba la màggal gi ñu dajaloo fii ñu dajaloo fii bokk fi ak mbokki taalibe yi ak mbokki dëkkandoo yi jàngat fi lenn loo xam ne dana mën a doon ab yóbbal ci mboolem ku ñëwoon ci màggal gi waaye ku amoon yéene màggal si te jotuta màggal si itam noonu lañ ko baaxoon a def at mu jot ñu ko baaxoon ànd rek nga xam ne kon ren ji bi nga xamee ne sëriñ bi jàpp na màggal gi mbooloo mi dajee ñu doxale ko nañ ko daan doxale ci la ñu fas yéene ànd nag ak sunu ñaari sang yu baax yi nga xam ne ñoom seq ñu fas yéene jàngat benn tomb boo xam ne ab yóbbal lay doon ci mbooleem ku ñëw ba mu jàppoon a ñëw ci bu ko digloo waxtaan wi ab yóbbal lay doon ci moom ba déwén ak jàmm incha allah yàlla na ko fekk xam naa nii lañu fa fas yéene waxtaan wi sëriñ Abdou Khoudous mi nga xam ne mooy wax ci turu daayira bi ak ci turu taalibe yeeg dongo yëpp mooy wax ci ci turu mbooloo mi yëkkati ay kàddu cant ak dalal mbooloo mi bu ñu ci noppee dina jox kàddu sëriñ Xalil mi nga xam ne moo fa yéene ànd ak ñun waxtaan wu am solo wii waaye bu jeexalee nag sëriñ Ahmadou mii nekk ci sama wetu càmmooñ mooy jàngataat nag. li nga xam ne ci moom la sëriñ Xalil doon waxtaane ci ak gàttal nag ñuy ñaan mbokk yépp teewlu ko te bàyyi ko xel bu baax a baax dinaa ci agsi léegi incha allah bu mu agsee sëriñ Xalil lu am solo la mbokk yi dajee ci mu war ko waxtaan muy makaarimul axlaaq ak Cheikh Ahmadul Xadim ni nga xam ne noonu la ko jëmmale loolu fas yéene waxtaane ñu ñaan mbokk yépp teewlu ko bismillahi alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina muhammadin almakin wa wa sahbihi zawi ridwani bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyo bi sëriñ Sidi Muxtaar yi nga xam ne moo mooy mooy kilifa dëkk bi di ko ziyaar di ko ñaanal yàlla mu àggale mboolem ay sémbam di ñaanal suñu wayjur suñu xarit sëñ Màmmoor Mbàkke radiyallahu anhu yàlla yokk ay leeram <clears throat> ni ñu ko ñaanale sëriñ Mahmoudan mi nga xam ne moo sañ ci dëkk bi euh, waral lépp moom itam yàlla yokk ay leer di nuyu daayira bi muy daayiratul ahfaat li Cheikh Mahmoudan di jokk bokk gi nga xam ne moo dox suñu diggante ak ñoom waaye itam di beesal kóllëre gi doxoon suñu diggante ak suñuy maam di barkeelu ci barab bi nga xam ne barabu barkeelu la ndax liggéeyal nañ fi sëriñ Touba bu yàgg bayal nañ ko fi ay ton di ko ko yut ci njaareem kon barabu barkeelu la ñu jàmm fi yàlla ay at boroom xam-xam yu bari génne fi foofu kon barabu barkeelu la ñu ngi fi barkeelu bu baax mel ni mbokk yi dañu sàkkoon ñu jëmale wax ci ci makaarimul axlaaq incha allah dana séddalikoo ci leeral lan mooy makaarimul axlaaq ak jëmmi makaarimul axlaaq ci alquran ak ci sunna ak ci njàngalem sëriñ bi ak nan la ñuy def ba am ko ak sëriñ tubaab nag mu ko jëmmale makaarimul axlaaq ñi koy xamle boroom xam-xam yi ñoom suñu axma ñi dañuy wax ne alxuluq ibaara an hayatin li nafs raasiqatin tasduru anha al afaal bi suhalatin wa yusr min geyri xaajatin ila fikratin wa rawiya wa yanqasimu ila tabiatin wa geyri tabiia defe naa noonu lañ koy taarife jikko la joo xam ne bu saxee ci nit ki sëxiñ ci mooy tax lu mu bëgg a def moo xam safaan ba la lu baax la day yomb ci moom du am takalluf du jar xalaat ak naka nakal ak deng deng ñu ne loolu nag am na boo xam ne yàllaa koy mooñaale nit ki waaye am na boo xam ne itam nit ki moo koy fàggul boppam am xam-xam boo xam ne mooy jàngale loolu mooy li ñuy wax ilmul axlaaq moom itam ñu ne ilmun yuwaddihu maana al xayr wa char wa yubayinu maa yanbagi an takuna alayhi muamalatu nnaasi baadihim baad wa yashrahu al gaayata allati yanbagi an yaqsida ilayhi naasu fi amalihim wa yuniru sabil xam-xam bi koy jàngalee di ko traité <clears throat> moom itam mooy xam-xam bi wane lu baax ak lu bon di wax nit ki nan la war a jëflante ak i moroomam ak fu nit di jaar bàgg ci jikko yu baax yooyu bu ko defee xam-xam boobu moo lay leeral yoon wi mu mel ni li ñuy wax usul buñ ca delloo am na ci bunt yoo dañuy wax li ñuy wax ummuhatul fadail ak ummuhatu razail mooy jikko yi nga xam ne xeet yépp dëppoo nañ ci muy lu baax ak li nga xam ne xeet yépp dëppoo nañ ci ne lu baaxul la nga xam ne àdduna bi foo réew moo dem foo comporté woo jikko yooyu bu dee lu baax ñooñu ñu mën a diina buñ ñu mën a gëm danañ la nawloo waaye bu dee safaan bay diine bu ñu mën a gëm danañ la xeeb lu mel ni ci misaal maandu tabe jéggale yooyu boo demoon Chine wala nga dem Amérique foo mën a dem jikko yu ñu tagg la nit ki nga xam ne wor ak fen ak rambaaj peuple boo dem dañ koy ŋàññ dañ ko jikkoo du ñu la naw mu mel ni jikko yu baax lu am solo la kon lu mat di waxtaane la waaye lu mat di jàngat la wolof yi dañ daan wax naan boo dee dégg ay nit te gisagoo leen ka ci gën a rafet aw tur moom ngay bëgg boo leen gisagoo soo leen séenee ñuy ñëw ki ci gën a rafet mbubb ngay bëgg suñu agsee ba toog ki ci gën a yiw ngay bëgg waaye soo jaxasoog ñoom nag ki ci gën a baax jikko ngay bëgg suñu delloo ci alxuraan dañuy fekk suñu boroom tabaraka wa di tudd ay yonent di wax jikko yi ñu ràññi ko wazkur fil kitaabi muusa innahu kaana muxlisan wazkur fi lkitaabi idris innahu kaana siddiqa wazkur fi lkitaabi ismail innahu kaana saadiqa alwa'd nee na ayuba ni'mal abd innahu awwaab mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa innaka la ala xuluqin foofu liñ fi seetlu kum ciy tudd ci yonente yi balaa wax li nga doon ci yonente day wax sa ko ba noppi waskur fil kitaabi Moussa innahu kaana muxlisan doog ne waa kaana rasulan nabiyyan kon jikko mooy jiitu mission mooy jiitu ak cëriñ mooy jiitu lu nit di liggéeye wala luñ koy fal wala luñ koy def jikko ji mooy jiitu moo tax yonent yàlla Suhaybu keroog bi mu dajeeg ñaari euh, Moussa laay wax bi mu dajeeg ñaari doomi Suhaybu bi ñu demee ci seen bàyyi naan ko embauché ko dañ ko ne inna xayra man istajarta al qawiyul amin istajiru kon dañoo wax jikko ya ba noppi doog ne doog ne ko embauché ko suñu delloo ci njàngale mi yonent bi te muy ahadis yi dañu gis keroog bi ko kenn laajee moom yonent bi ne ko li gën a gaaw a dugal nit àjjana wala li ëpp ci liy dugal nit àjjana daf ne taqwallah wa xusnul xuluq taqwallah wa xusnul xuluq ragal yàlla ak rafet jikko fii dañuy gis ne ko ndek ragal yàlla des na ko def te sa jikko du rafet ragal yàlla ak rafet jikko ndax nit ki man na ragal yàlla di jaamu yàlla di def yi yàlla yi santaan yi moytu waaye nag àggul ci ci jikko ju baax jikko ju baax ji mooy raaya bi résultat bi taqwallaahi di joxe mooy xusnul xulq kon xusnul xulq moo gën a ko ragal yàlla yonent bi nee na inna min ahabikum ilaya wa aqrabikum maay majlisan yowma alqiyaamati ahasinukum axlaaqan ñi may gën a jege bu ëllëgee yowmal xiyaam nga xam ne ñooy sës rëkk ci man waaw nee na ñooñu ñooy ci gën a rafet ay jikko mu ne maa min cheyin fi l misaani asqalu min xusnul xuluq li ñuy teg ci jëf yi di ko peese ci balance yi bu yomal xiyaamee nee na li ci gën a gaaw a diisal balance nee na mooy jikko ju rafet mu ne inna rajula la yudriku bi xusnil xuluqi darajata saaimi alqaayim nee na nit dana àgg ci jot ki nga xam ne day fanaane woor di dëkke naafi la maanaam mu mu rafet jikko rek daal di koy daal di koy daal di koy daal di koy raw walla mu jot ko waaw xam naa loolu moom dañ koy bàyyi suñu axma bu noppee rek moom defe naa ne mu fassir la te suñu delloo ci njàngaleem sëriñ bi njàngaleem sëriñ Touba radiyallahu anhu moom it dañuy gis ne jikko da ko fonkoon lool daa wax ne man bokkuma ak kenn dara kenn ku ne li nga baaxale laa bokk ak yow ne li nga baaxlewul nag sa yeneen mbokk yi nga ko bokkal daane wax ne bépp barab bu ngeen gis ci barab yi nit di fa dugg ko génn mbooloo mi bari fa mu ngi jublu ñi mu seexal ak ñi mu defar nee na la fa ne maa ko maa ko fa def waaye mbooloo muy dugg ko génn la leen fay bàyyi nag jikko yi kañ fay fekk la daana wax moom sëriñ bi ne dee leen defar seen jëmm ba ku leen gis xemmem leen waaye defar seen jikko nag ba ku ngeen sol du leen mën a muñati daana wax ne suma digg ak maam Thierno de sama digg ak de li ko tax a mel nii damay mag ju iñaanul muy rakk ju buggul àdduna sëriñ Sàmbay radiallahu anhu daana wax ne sëriñ bi bi mu jikki bi mu dikkee jamono euh, jikko yi nga xam ne moom lañ daan tàggee nit ñi nee na kenn ku ne jikko ja nga xam ne yow champion nga ca dafay ñëw tàmbalee fa nga yem jëm kaw bu dee tab kañ gën a naw ci tab bi mu bi ñëwee raw ko bu dee xam-xam noonu bu dee lu mën a doon ci jikko yi nee bi ñëwee dafa fa kooka yem ci ci dayoo fa tàmbalee jëm ko sëñ Mourou Lamine Diop Dagana ne moom de dañoo fekk ci tollub lislaam ñuy bàyyi mu man ñu ci fopp waaye ñu jël suñuy ileer topp ci ginnaaw di bàyyi kon sëriñ bi radiallahu anhu lim ñu njëkk a jàngal ci makaarimul axlaaq mooy yërëm gone weg mag def sa ki nga maaseel ni sa morom ni sa bopp kanaa ñi jàng nax yu nga xam ne téere bi ñuy njëkk jàng ci tegee lim lay njëkk tàmbalee jàngal foofu lay tàmbalee mooy yërëm gone weg mag ki nga maaseel nga def ko ni sa bopp kanaa nit mënta am mënta weesu ñett ñooñ ki la mag ak ki nga mag ak ki nga maaseel mu mel ni bu njëkk bi mooy gën a yomb muy yërëm gone ndax gone moom bari na si mag ñoo xam ne sax yàlla day mi xir ci bëggi gone waaye nag wekk mag ak ki nga maasel nga def ko ni sa moroom léeg-léeg dana xaw a jafe rawatina ki nga xam ne moo la mag wala muy sa kilifa yow nga am tuuti ci daraja wala nga am tuuti ci xam-xam wala nga am tuuti ci alal léeg-léeg na nga wàcc sa daraja jox kilif téef gi kala féete kilifa loolu loolu day jafe léeg-léeg naka noonu itam ki nga maaseel loolu ñuy wax euh, ak firante danay am ci diggante yi lool dana ci yomb loolu léeg-léeg moo tax loolu muy xaw a jafe kon day mel ni rahmatu saxir léeg-léeg muy gën a yomb waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na laa yuminu ahadukum xataa yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsihi kenn ci yéen ngëmam mënul mat li fekk àggul ci lim yéene boppam moom la yéene mbokkam kon boobu mooy wajaxlu mislik ka nafsik sëriñ bi nee na yéene ñëpp jàmm de taxul ñëpp am jàmm waaye yow mi leen ko yéene da nga ko am ñu bari nag ci nit ñi boo gisee li ñu wax fiirante euh, mooy iñaanante di am ci diggante yi nit day jàpp ne bu ko moromam gënee ak baaxam day suulu loolu nag gis-gis la boo xam ne yàgg na fi gis nga yuusufu keroog bi ko mbokk yi euh, ne nañ ko rey ndax dañuy wax ne baayam moom lañ gën a fonk ci ma dañ ne uqtuluu yuusufa aw itrahuuhu ardan yaxru lakum wajhu abiikum wa takuunu min ba'dihi qawman saalihiin bu ngeen ko reyee bu ko defee nag seen bu baax ci lay doog a mën a feeñ sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu daan wax ne ku ngeen gis koo gis rek muy ab jullit nee na sa mbokk la mu ne boo xamee lu ngeen bokk nag nee na sa bopp la daan wax ne wala tuadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah képp ku ngeen gis muy ñépp ci gémmiñam di wax laa ilaha illallah nee na bu leen ko def am noonu kooku seen bokk la kon moo tax murit bi wala jullit bi waaye rawatina murit bi war a jël mboolem bi ab jullit moo xam da ngeen bokk tarixa wala bokkul sax ci tarixa waaye ab jullit la rek ñépp nga jàpp leen ay mbokk tarixa yëpp nga jàpp ne ci yàlla lañ jëm fi ne tarixa yi dañu mel ni euh, autoroute lislaam mooy autoroute bi l'islam mooy autoroute voie yi nekk ci biir autoroute bi mooy tarixa yi yépp ci yàlla lañ jëm maanaam otorut bi voie yi ne ci biir yépp ñoo bokk fuñ jëm boo ci topp rek danga dem fa am fan yi benn euh, américain bu ñëw di jóge Amérique di di tuub si di dugg ci lislaam mu ñëw di tuub si ci man am sama benn ku nekkal foofu di liggéey mu ne mu ne nag moom xale bi euh, euh, jikkoom daal daf ko ne ah, faaw da day dugg ci diine ji nekk daal di koy daggal bii ñu ñëw bi ñëwee ñu tuubal ko wax ko li ñuy wax kalimatu shahada yi du noppee Euh, ñi mu àndal xam naa xaw xir ne ko da ngay jébbalu da ngay doon murit mu ne leen jébbalu mooy lan euh, ñu ne ko daal da nga koy def muy sa gitt daal tekk ba mu yàgg ma ne loolu nag day diis ci man waaw kii maa ngi koy doog a gis tey tey nii waaw xamaguma ko xamaguma ay mbiram ñu di ko jox sama yëpp day diis nag lool <laughs> ma leen wax na dëgg mu ne waa ji waaye wax ko ne ko lim def mooy li ëpp solo te mooy dugg ci lislaam léegi ne ko tege na ci autoroute bi li ci des nag ngay daw rek bu yàggee bu waaye buy xool mooy xool bi bi bi ko ci gën a arrangé mu dugg ci waaye li ngay wax ni ma ne leen ay détails rek bokk na ci makaarimul axlaaq xam naa yu bari la waaye dañ koy tënk rek mooy li ñu wax tawaadu mooy wàcc sa bopp toroxlu moo tax jéggale jamono bu ñu nekk la war waaye rawatina jamono bi ñu toll nga xam ne tooñ yi bari na lool ci diggante réseaux sociaux yi diggante baree bari yoo xam ne ba tax xakim ne kuy tooñ du mucc kuy fay du noppalu sëriñ bi sax moo daan loolu kuy tooñ du mucc kuy fay du noppalu tax kon lii nga xam ne mooy noppal nit ki mooy di jéggale rawatina boo jekkoo wa in tastati fasfax fala xayra fi mriin isa talaqat awzaaruhu bi shawa shawa dafa naa loolu euh, mooy makaarimul axlaaq bokk na ci makaarimul axlaaq suturaal sa mbokkum jullit man satara muminan satarahu llaahu yawmal qiyaama ku suturaal sa mbokkum jullit yàlla dana la suturaal ba ëllëgee waskur mahasina ma fihim isa sukkiru nit bu ñu waxee ci sa mbokkub jullit wax ca lu rafet la nga xam laa taltamis min uyubi naasi ma sataru fa yaxtika allahu sitran an masaawika bul def koo xam ne foo toll ay bi nit ñi rek ngay mooy di ko wuññi di ko tisaari mooy sa liggéey nee na ku koy def yàlla dana wuññi sa awra fii ci àdduna wala ci àllaaxira ku weer nit ñi bañ xëy weeru buur yàlla xëy ko weer ku sàngu mbalaana mu sutura nit ñi mu sàng ko kon nit ki bu gisee audio buy circulé wala vidéo buy circulé di xas mbokkum jullit wala bu di ko ayibal yow waru ko déglu hmm. waaye waru ko partagé waru ko aimé waaw sëriñ bi nee na kiy jëw bu mu defee ne moom kiy déglu jëw bu mu defee ne moom kiy jëw rek moo mooy yor bàkkaar ba waaye yow mi koy déglu yaa moom yéen a koy bokk inna allazi al xiibata xad yastamiu yushariku al xaaila fi ma yasmau wa kullu man atlaqa usnayhi soda ila al hawa fa sawfa yaalamu gada koo xam ne dangay def rek lu ñëw rek nga liir lu wax nga déglu ku wax nga déglu nee na bu ëllëgee boo dajeek sa borom da nga xam mel ni fi ne tasaare ay bi nit ci jamono ji la gën a mettee ndax wasail wasailul i'lam yi ni mu jàppandee nga xam ne boo jëloon benn audio xas ci nit balaa ci suba gi balaa timis euh, àdduna bépp man mën nañ ko déggandoo loo xam nga loolu bu njëkk amul woon moo tax kon yàq dërëm nit ci jamono ji la gën a la gën a mettee waaye ci la gën a gën a gën a gën a gën a wër ndax nit ñi fi ñu toll dégg lu bon day mel ni moom lañ gën a sawar ci dégg lu baax waaw li waa ji wax rek ne summun isa samiho xayran zukirtu bihim wa in zukirtu bi charrin indahum azidon nee man de noonu yi jaaxal nañ moom daal suñu déggee ñuy waxtaan ci man lu baax day mel ni dañuy tëx duñ na ko dégg li li li ñoo ñooy wax waaye suñu waxee ci man lu safaan nag ñu daal di ubbi seen nopp di déglu bu baax a baax bu dellu bata commentaire ñu commentaire ci loolu nag foofu la foofu la jamono tollu léegi day mel ni ñuy tas xabaar sax loolu lañ jàppe xabaar mos naa dégg benn journaliste muy wax xabaar mooy lan mu ne bu fekkee dañu ne xar mi mi ngi for ci ci ci ñax mi nee na loolu information waaye xar maa ngay màtte nag nee loolu mooy information nga daal di gis ne kon léegi nu ñuy amee makaarimul axlaaq li ci jiitu mooy euh, jikko yi nga xam ne mooy jikko yi li ñuy wax ma yóbbu nafs yi biiru ci nit nga ànd ak sëriñ bu matub sëriñ mën koo dindi bokk na ci li ci dimbali nit ki pour mu mën a tàggali ko ak moom ndax ayib bi bakkan mooy yi ñu doon wax léegi iñaan ak réer bëgg dara yooyu dindi dindi tàqali ko ak moom yombul day mel ni xam ne mu ngi ceew sax moo njëkk jafe ñoo ko ma laa nag di ko di ko di ko mën a dindi il faut da ngay dajeek spécialiste ci wàll boobu mooy li ñuy wax cheikhul murabbi mu mën a def la li ñuy wax taxliya def la li ñuy wax taxliya taxliya mooy dindi lépp lu nekk ci yow lu baaxul ci ay jikko taxliya mooy jikko ya nga xam ne mooy yi baax mu fexe ba def ko ci bi ko ñaareel mooy xamlu mooy jàng jàng ci ngay mën a xamee li li jikko yu baax yi ñu tagg ak ni nga war a def ak di jëfe li nga jàng bil ilmi tahya bil ilmi tahya qulubun qattu ma arifat min qablu ma alfarq bayna alxaqi wal mayni bi ko ñetteel mooy euh, di ko di ko di ko toggoo maanaam di jikko jikkaloo jikko ju baax loolu it dana tax nit ki mën ca fa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bi rijaali xamiidu su ngeen mënta mel ni gaa yu baax yooyu itam na ngeen jéema a nuru nurul leen ndax nuru nurul gi rek loolu baax la imaam Shaafi wax ne uhibbu saalihiina wa lastu minhum la'allii an anaala bihim shafaa nee na man de donte baaxuma it waaye dinaa jéem a baax baaxlu di jéem a roy ci gaa yu baax yi ngir ma mën a mel noonu waa ji wax ne wa ma zaaka illa bastatun an tafaddulin alayhim wa kaana al afdal al mutafaddilu loolu ab ceddo la moom nee na jikko yum lim ne moom noonu la mel waaye nee na nag la ma ko may mooy di ko jéem a jikko jikkoloo rek nee na kii jéem a gën gën lu mooy gën wa kaana al afdal al mutafaddilu sëriñ Saalim radiyallahu daana wax ne eh, roy de ku ko def sëriñ bi du tax nga jot ko waaye nag ña nga ña ruyul da leen kawe min naqsi ma fil xutri wal abaari nee bi muy sanc koso booba sañc ga metti na lool ndax booba manqué na ndox ay teen amu fi wala banaa koso xiinama rafadal binaa fiha suyooxu fa karra doona firaari waaw loolu sëñ Ahmad wax na wax mu nee na boobu sëñ bi am na ñu fi jot a yebal waaye booba yëf yi yëf yi yëf waaw booba ñàkk fi ñëw doon teewul lu jàmbaar waaw waaye nee na moom fakkar la doon a firaare waaw wala xat banaa koso ina laysa anisuhu fiha siwa tasbihi wala azkaari waaw nee na bi muy sàcc fii booba wéttal bi rek sàbbaal yàlla jàng alxuraan yooyu rek mooy wéttalam boobu waaw li ñuy wax isaar mooy loo am bàyyee mbokk yi na loolu loolu sëriñ bi ràññikoon na ci lool ndax ñi may waxtaanal ci yenn mag ñi doon jànge fii nee nañ ma lii yi fii daan metti metti nee na sëñ bi lu muy jëfandikoo nee na balaa sukk ci ndab li mbokk yëpp dañ teew mbokk ak ñoom la loolu kon isaar la ñuy wax pirul waliday ni moo ko tax a sañ ci fii ndax loolu du ko sëñ bi sante loolu yi bu bu fi ñëwee nangoo jànkonteeg yu mel noonu kooku mbiru laal day fa la mën a li ñuy wax ixtiraamul muasirin mooy ñi nga jamonoonteel nga warmal leen jamono mislika ka nafsika digganteem ñi mu bokkaloon jamono ci ay kilifa loolu tegtale na ko sëñ Abdou bi nga xam ne moom la dëkkaloon fii gis nga ni ñu demee woon ba mu tuddee ko doom gis nga dem ba bay laaj moom sëñ Abdou Lahad ñi mu nekkal ndax xam ngeen jikko bu maam Thierno amoon te sëñ Mahmoudan amu ko fa la fonkeel yam parce que sëñ Basiiru bi fi indi ay njabootam lim lim lim wax mooy moom li ko ci gën a ñor mooy lañ fay jële muy yar nga xam ne buñ jànguti ne ci wetam rek parce que sëñ Cheikh Gaynde Fatma danaa wax nee moom de ñooñu ñu daan jàng ci téere yu njëkk yi muy ahlu yu yàgg yooyu day mel ni moom moo dellusiwaat ci moom moom mooy moom daal waaw na yooyu ñu doon jàng di mel ni ay ustóora euh, nee na mooy mooy mooy sëñ Mahmoud waaw jikko yooyu la meloon moo tax waliza taxaraja min majalisi daarihi fawjun min al ulamai wal ahbaar nee na lii tax ku jànge ci moom xam ndax barkeb xam-xam yàlla daf ko def ci moom la shakka an cheikh ibrahima xat xarat lahu aynun bi libnil baari loolu wane na ne sëñ borom daarul moxti euh, kontaan na ci moom bég na ci moom wa kazaka ahlu daari bal ahlu tariqati waaye daarul moxti nee na waxul daaru moti waaye tarixa murit bépp nee sax waa waa waa lislaam yëpp waa lislaam yépp euh, am nañ am nañ euh, fuñ ko teg loolu nag mooy li am solo sëñ Abdou Lahad wax genn kilifa ne ko fexeel ba fexeel ba doy nit ñi rek waaw ngay fexe ba doy nit ñi waaw te loolu lu am solo la wa min saadatil fata xaysu qasat an laa yaruddahu fuaadu zi rasat karim axlaax li muy def boo ko melowoo ku baax ku mën a doon dana la bëgg tuuti mu def ci ab taxaw seetlu ci li nga xam ne moom la sëriñ bi doon waxtaane wala balaay boobu rek ma fàttali mbokk yi ñenn ci ñi nga xam ne ñoom lañu àndal liggéey bi waaw daayira bu mag bi nga xam ne moo féete Touba seen taxawaay ci biis bi ak ci guddi gi ñoom itam rafetlu nañ ko lool te ñi ngi koy ànd ak ñun boobu ak léegi di fàttali itam sëriñ Jiiri Thiam mi nga xam ne moo nekk ci meeru Mbadiane bi ma tuddoon léegi ak ñoom seqal maire yi ba yépp seenu jàppale ak seen taxawaay ci liggéey bi ñoom itam gis nañ ko bu baax a baax waaye sëriñ Maguette Gueye moom itam fàttewuñ ko benn yoon mi ngi nii ànd ak ñun jotaay bi